asalaamaaleykum wa rahmatulah ñun Babacar Seck euh, Pastef Medina Baye responsable section communale Kaolack Pastef ñu ñëw fii di def set setal pour Medina Baye comme ñu ko président de la république son excellence Bassirou Bassirou Diomaye fay lancé chaque samedi ci mois chaque jour samedi bu njëkk ci mois bi euh, di ko lancé ci tànn benn région ñu ko fay lancé tey aujourd'hui son excellence premier ministre Ousmane Sonko mu ngi maatam ñun comme Médina lañ dëkk te gàmmu gi mi ngi waaj a ñëw ñu ne nañ former benn sa setal jàpp ko le set mu nekk bés bu symbole ànd ak bés bu ko bi di fête ak bu aussi koy Sénégal yëpp di def. léegi moo ñu indi fii tey dajale ñu fii ñun Pastef Médina Baye euh, ñu ngi ci liggéey bi euh, on est avec notre frère Jim Kébé et Mister Niass et Mister Thiam. Euh, liggéey bi ñu commencé nañ ko depuis 9h ñu ngi xaar les autorités yi war a jógee Dakar ñëw incha allah mais l' essentiel mooy ñi war ñëw ànd ak armée bi ak euh, waa Sonaget ak waa euh, cadre de vie ñëpp ñëw nañ ñu ci biir dëkk bi di bale comme ñun na lañ dëkk gàmm rek lañ am gàmm mooy événement bu gën a mag ci dëkk bi bi li ñu xalaatee affaire bi dem nañ wax ko sëñ bi moo ànd ceeg ñun nangu ñu ñaanal ñu yàlla. Euh, xam nga Pastef dafa nekk parti boo xam ne parti bu boo xam ne nii yëfi euh, dafa sa civique euh, dafa dafa dafa dafa digal dafa jiital ci léppam loo xam ne ni day jëmale dindi doomu adama ak nekki ni doomu aadama boo seetloo ñun li ñuy def sunu action yu bëri action civile la parce que dañuy maye deret seetlu nga avant ñi ne ci opposition bi dañ daan def ay don de don de sang dañaan def aussi ay set setal parce que set setal bi ñu initié du gan ci ñun miin nañ ko yàgg nañ koo def encore aussi dañuy dañuy dañuy boo gisee que fu mu defee formation ba pare wala meeting ba pare danga gis muy for di bale kon bale suñu yëf la te nag ñuy sàkku ci dëkk bi waa na yëpp ñu génn tey bale te bu mu yem tey te bu ñu balee buñ tilimalaat parce que li gën a garaaw mooy nga bale ba tilimalaat buñ balee buñ tilimalaat ñëpp maa leen di ñaan ñu génn bale ñu ngi sant yàlla ñuy kontaan bu baax jërëjëf.